réeroo yi daan dox diggante béykat yi ak sàmmkat yi ci zone bu Anambé daanaka tàmbale na di am ay saafara. parce que dafa am benn phénomène boo xamante ni dafa am ci secteur G bassin Anambé muy phénomène de la divagation des animaux ci dix plaintes yi nga xamante ni enregistré gul nañ ko fële ci sous préfecture pour dévastation de culture cinq yi fii la jóge donc Evive bi à long terme dafay nekk benn solution bu nga xamante ni dafay tax. animaux yi dootuñu mën a duggati. may lancer un appel parce que loo gis dafa am suivi producteurs yi nga xamante ni ñoo fi nekk ñu fexe ba suivi bi nekk vraiment lu taxaw ah ñu bañ a yem ko rek parce que activité bi damay lancer benn appel mu bañ a yem tamit ci secteur G. ñu ni nag lu weesu li ñuy jëmbër ngir xeex jafe-jafe yi daan dox diggante baykat yi ak sàmmkat yi xeetu programme yu mel nii dana tax waxambaane yi am ci lu ñu jàpp ndaxte ñàkkum xëy mi tax na ñu ci bëri di soqeekoo ci wàllu wi di dem ci mu nekk li nga xam ne dafay participer ci écosystème bi. parce que clôture la mais aussi gàncax la en même temps. ñu bëggee ndaw ñi des ci biir dëkk bi nañu bàyyi xel ci matériel agricole bi pour ndaw ci mën ci am quota bu important bu nu bëggee euh, ndaw ñi des jublu ci mbey bi pour suñu souveraineté alimentaire bi ñuy wax. nañu fexe ji bi ñu koy am à temps mais ndaw ñi di ci am quota bu important parce que ren aussi dañ koy dañ ciy waxtaanee wax dëgg ca la euh, def nañu maïs à travers le programme le projet Tiers Sud Bay Daare waaye bu ñu sañoon ñu bokk aussi ci programme hybride bi mais hybride bi dañu constater que bi nga xam ne dañ ko waroon jagleel ndaw ñi en tout cas ñun ci suñu zone bi gisuñu ko. ren ji itam waa Agro Béydare bokk ci programme bi ñuy duppee Thiès Sud daal di dikk daal di indi lu toll ci juróom benn junniy garab fas yéene ko jëmbat